alo euh, dama gis ni que am nga ay relation ak l'ancien président du Sénégal Abdou Abdou Diouf am nga ay relation ak maître Abdoulaye Wade nekk aussi euh, suñu troisième président am nga ay relation ak le président actuel du président Macky Sall mu mel ni euh, ñetti président yooyu yëpp am nga ak ñoom de très bonne relation Abdou Diouf lan moo nekkoon seen diggante yi Abdou Diouf su li nekkoon suñu diggante Abdou Diouf lu bari la suma nijaay la suma xarit la et puis Abdou Diouf euh, mbokk la si man un peu parce que Abdou Diouf ak suma nijaay bu bokk suma yaay ndeeg baay ñoo bokkoon benn néeg di fanaan benn néeg suma maam Mamadou Tandian bi nekk euh, nekkoon euh, Ndar moo takkoon bàjjanu Abdou Diouf moo takkoon bàjjanu Abdou Diouf donc Abdou Diouf ba mu doon jàngee ndara man fekk su nijaay moom côté Mauritanie la nekk mais il fait partie des premiers euh, des premiers médecins mauritaniens bu boobaa à l'époque Saint-Louis la ñu doon defee seen stage foofu la ñu doon jàngee parce que c'était la capitale de de la Mauritanie moom ak suma euh, Abdou Diouf suma nijaay ñoo bokkoon beneen nekk et quand Abdou Diouf avait su assu tout ça les rapports ont été devenus plus euh, plus faciles et puis boole koog maintenant nag euh, bi may démarrer te j'ai démarré en trombe Euh, Sénégal gi dañ ma fonkoon gis ni ma investir ak ni ma ñëwee à l'époque benn télévision moo fi amoon mooy la la RTS alors le fait que la RTS ait diffusé ces images d'inauguration comme ça mais du coup dama daan gaare sama oto. le président Abdou Diouf ah il n'est pas venu c'est après qu'il est venu c'est ah, après c'est après euh, euh, Abdou Diouf quand quand j'ai quand euh, euh Abdou m'a m'a m'a m'a Sa femme m'a coopté, parce que, vous savez, sa femme avait une fondation assez célèbre qui c'était la Fondation Solidarité Partage. Donc, daf ma coopté on boole ma si les membres de la Fondation Solidarité Partage. Et puis fondation boobu aussi dama si doon ay jéego nga xam ne bon mais euh, mes bénéfice bénéfices ou quelques bénéfices que j'ai fait. dama la euh, dama dama la. nga tàlli da nga mën tàlli luy tàlli. ko tàlli ko autoroute. non non tonton ah, mais mais mais loolu lu ma doon la sama papa moo la meloon. loolu lu ma doon la c'est-à-dire que en fait man xaalis dama xaalis laa gëmul xaalis du dara. xaalis boo ko yoree ba pare maintenant nag yow tu n'es pas capable d'aider ton prochain tu n'es pas capable de donner à quelqu'un tu n'es pas capable de jàppale nit et ainsi de suite finalement la ngay wut la lay la lay jëriñ. du la jëriñ dara.